tey seeni doom ñoo ñëw créer benn mouvement bu ñuy wax je suis ay doomu Médina ñoo ko créer ñu nekk fii ci Médina ak ñu nekk ca bitim réew. tey boo leen gisee lii mooy ba feebar bi duggee bi Covid 19 fii ci suñu réew dugg ci àdduna bi ba yàlla def tey mu dugg fii ci biir Médina tey dañoo woote ñun ñëpp ne dañuy def sociale dimbali doomu Médina yi nga xam ne soxla nañ ko muy ay gel di ay omo. de ay madaar di lépp li nga xam ne day xeex feebar bi loolu moo waroon tey initiative bii ci biir loolu yàlla def suñu biir Médina fii mu am benn cas ñu koy sante yàlla nag gëm ne yàlla moo ko fi teg ñaan yàlla mu yam fi tey famille bi nga xam ne ñoo dëkkoon ci étage bi ñi nga xam ne ñoo nekk en quarantaine ñu gis ne am nañ ay besoin muy lii di couche lii di ay coton pour jigéen ñi lii di ay gaz lii de ay suukar li nga xam ne ñoom munuñu ko doon defari seen bopp ñoom bañ ñu ko waxee ñun dañoo bàyyi lépp lu ñu jàppoon ne ñoom la ñu war a taxawu parce que ñoom ñooy priorité moo tax lii ngeen gis tey lii pour ñoom la ay doomu Médina lañ kon ñun tey bu ay doomu Médina soxlaa ñëpp dañoo war a ñàq ñu yëkkati jox leen. waaw comme ni nga ko gisee rek tey ci tey ci hôtel bi lañ jëm jox ko famille bi nga xam ne ils sont en quarantaine demain incha allah li ñuy nar mooy dañuy jël oto. def ci sonorisation def ci ay dons dugg ci biir quartier bii di Médina muy ci hôpitaux yi lu ci mel ni hôpital Elisabeth li ci mel ni PMI bu Tilène wala polyclinique ñu jox leen ko ak ñi nga xam ne waa police quatrième yi nga xam ne ñoom ñoo yor suñu kaaraange fii ci biir Médina ñu jox leen seen wàll population Médina bi tamit duñu leen fàtte lépp tamit ku ci nekk rek li nga ci war a am incha allah dinañ la ko jox. ba ñu wootee initiative bii di Médi je suis médinois je cotise 100 francs gis nañ ñëpp bàyyi nañ seen yitte yi muy ñuy joxe cent franc ñuy joxe deux cent ñuy joxe cinquante mille ñuy joxe leneen ak leneen ñoo ñëpp la ñuy boole benn ngërëm bi parce que di wax ne ñoo ñëpp ay doomu Médinois lañ. ñuy gërëm waa diaspora bi jàpp nañ ci bu baax fii waa Médina ñëpp jàpp nañ ci amul xàjj amul seen.